ñetteelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi yàlla àtte na aadama ak awa ndax seen déggadi bañ a déggal yàlla mooy bàkkaar yàlla àtte na jaan ji itam yàlla moolu na jaan ji ne ko dina watatu dootul dox ci téere njalbeen gi yàlla wax na jaan ji itam dinaa def mbañeel sa diggante ak jigéen ji ba dëddale sa xeet ak xeetam mu toj sa bopp nga di ko màtt ci tëstën foofu yàlla mu ngi doon wax ne dina yónnee ab musalkat buy juddoo ci jigéen tey daan seytaane yàlla ne jigéen ji metitam dina yokk buy jur doom yàlla wax aadama ne dina moolu suuf si suuf si dina saxi dég ak i xaaxaam te nit dina am coonoy liggéey ngir dund adama ak awa sàngoon nañu seen yaram ak ay xobi garab waaye yàlla rey na mala ngir ñu sàng seen yaram ak deru mala mi gannaaw gi yàlla génnee na adama ak awa toolu àjjana yàlla teg ca buntu tool ba ay malaaka yu ñuy wax seruben ak jenn jaasi juy tàkk te di wattu buntu ba yàlla ne léegi nit mel na ni nun xam na lu baax ak lu bon kon bu mu lekk ci garabu dund gi ndax kon dina dund ba faw noonu yàlla génne leen toolu na léegi adama di bay suuf si ñu ko binde fii nettali bi yem léegi ma laaj leen juróom ñett lan la dégg dig aadama ak awa indi ci àddina seen déggadi tax nañu teqalikoo ak yàlla seen digganteeg yàlla dog te seeni xel texalikoo nañu ak yàlla gannaaw aadama moo jur nit ñépp nun ñépp a juddu teqalikoo ak yàlla te benn bés dinañu dee juróom gannaaw bi aadama ak awa bàkkaare lan la leen yàlla dikk ci mbirum seytaane yàlla digge na ne dina am bés ab musalkat bu juddoo ci jenn jigéen dina daan seytaane fukk lan lanu digu musalkat boobu di won ci mbirum yàlla yàlla bëgg na nit bu dee sax bàkkaarkat la yàlla dinañu baaxe yoonu mucc fukk ak benn naka la yàlla mooloo suuf si bàkkaaru aadama moo tax yàlla ne ay dëkk ak i xaaxaam dinañu sax ci kaw suuf ba mu jafee bey fu ak ñaar lu tax aadama ak awa jël ay xobi garab ngir sàng seen yaram te ñu làqatu ba aadama ak awa lekkee doomu garab gi yàlla tere te saa sa xam nañu ne yaramu neen lañu def noonu ñu jël ay xobi garab ngir sàng seen yaram dañoo bëggoon def lu neex yàlla ci seen pexey bopp ba ñu déggee yàlla di ñëw ñu làqatu ndaxte amoon nañu gàcce te ragaloon nañu fukk ak ñett naka la yàlla wutalee aadama ak awa ay yére yàlla rey na mala aadama ak awa sàng ci seen yaram loolu wone na ne bàkkaar moo indi dee derete mala muur na bàkkaar fukk ñeent lan mooy peyu bàkkaar dee yàlla def muy peyu bàkkaar bàkkaar kenn mënul gas suul ko fukk ak juróom lu tax yàlla génnee aadama ak awa toolu àjjana ngir dootuñu lekk ci garabu dund gi bay dund ba faw kon bokk benn bés dinañu dee fukk lu tax aadama ak awa mëntuñu woon dugaat ci toolu àjjana yàlla tegoon na ci buntu tool ba ay malaaka yu ñuy wax seruben ak jenn jaasi juy tàkk fukk ak lan lañu jàng ne mooy peyu bàkkaar peyu bàkkaar mooy kóllëre ak yàlla gu tas bàkkaar mooy indi gàcce ragal ak dee